yéene jëmu amoon yàqu na yaakaar jëmu amoon cas na ndax nee na Sénégal waruñu jóg rek kenn jóge fee ne lay lay cëpp rek ne maay seen présidon ndax balaa ngay doon président nee na da war a doon maire wala député wala nga am ay ndombal tànk yoo am ci réew mi loolu daal jàpp naa ne dictature la. kan moo yëkkati kàddu yu ni mel Jean Paul Dias bàyyi Barthélemy Dias mi nga xamante ni gis ngeen li mu def ci Ndakaaru. gis ngeen li mu teg doomu ndeyam ba mu daan tiitaru waaye ñoom ci boppam ba tey gëmuñu né Bassir Diomaye Fay muy président du Sénégal mbokk yi téwlu sen chaîne préférée sen TV ñu avons rek sétane vidéo ba mu jeex partager ko aimé ko dinañ leen ci vidéo vidéo bi kaddu Jean Paul Dias kaddu Bassir Diomaye Diakhar ci li nga xamanteni yag wax ci parti bi ci Ousmane Sonko ci Sénégal ci lepp lo xamanteni ne da nga gis Samba Boy diriger service. Nous sommes dara ñun à l'époque du BCG qu'il fallait que pour être candidat à la présidence à la présidentielle nous mën sa nekk maire le président conseil rural ou le ministre le député mais yow yooyu yëpp nekkoo ko nga jékki-jékki taxaw dama président Sénégal mais Sénégal c'est pas le Gondwana c'est pas le Gondwana. Donc, je pense qu'il faut, des vrais critères. Il faut conseiller de faire une erreur. Parce que Wadjoli, voulez. Il faut que vous le parti pour nous dissoudre. C'est juste, n'est pas juste. Discuter au Moko. Mais le parti est dissous. Et d'ailleurs, je vous demande même d'attaquer une décision Mobo. Quand jamais Warul pas que candidat. Mais pourquoi vous prouvez qu'il y a un an, il n'était plus membre de ce parti-là. Que donc il peut être candidat indépendant. Nous, on me dit oui. Coalition, pour investir. présenté candidature. Mais il vient d'un parti dessous. Je pense que Fofouya, il y a des choses qui ne sont pas claires. kàddu yi ñu muy waxee rek da ngay xool ci xar kanamam ne am na lu ko metti Faluk Jomaay Jaaxar Fay metti na ko ba ci kanamu yàlla

ak lu mu ci mën a doon Macky Sall objectif am moo doon Ousmane sunk du bokk lu bokk ci moom du bokk waaye nag dafa mel ne yi tamit Barthélemy Dias xamoon na yi tamit Ousmane Sonko élection yi bu buñ ko randalul yàq ko jaxase carte gi moom Ousmane sunk ci boppam képp ku mu joxañ kooku day daal di gagné au premier tour moo tax mbégte la ñu amoon ci jamono ji nga xamante ne annoncé nañ Sénégal ci boppam y aura plus d'élection loole nag Macky Sall moo doon yéenam ñu bari ñu ngi tagg Macky Sall ak di ko gërëm ci jàpp ne dafa jaarale élection yi ci yoon déedéet Macky Sall sàcc na ba sàcc fu dara nekkul waaye lii problème bi sàcc yi dafa doy lu mu sàcc rek sénégal yi ci boppam maanaam voté nañ lu ko raw maanaam triplé nañ ko bu dee ca Touba gis ngeen doo gis benn fiche boo xamante ne wala këyit Bassirou Diomaye jaaxal fay buy taxawal ci suuf lépp lañu vote voté sax ba lépp luñ doon vote mu mu jeex nga xam ne ñoom ci boppam xam nañ ne sacc nañ waaye sacc yi ci boppam dafa doyut boo demee ci fu ne fu ne moo tax élection yii di ñëwaat 2029 mille vingt neuf loolu lépp dana mën a leer bu ñu defaraatee fichier bi électoral bi ñu bari ñu dugal leen ci ñi nga xamante ne dañoo bind woon Géejawaay ñu sànni leen Ziguinchor ñu bind woon Ziguinchor ñu sànni leen Touba ngir rek jaxase loolee ci boppam. dama jegeen rek Diomaye mais voilà quelqu'un koo xamante ne on est jamais d'accord. pourquoi on est jamais d'accord parce que bu ma amee vision wala sensibilité boo xamante ne dafa wuuteeg bosam. dinaa ko ne man lii nii laa ko gisee nii laa ko gisee su ma d'accord naa ko wax lii d'accord ma ci lii d'accord ma ci mais bu ñu tënkee délibéré ba opinion majoritaire bi féete ak moom. ñaar laa ko euh, laa ko ameel ameel ko parti bi mooy loyauté ak engagement. Oh. parce que mënuma dem jàpp dama am la science infuse bu ma d'accordul moom parti bi jaar ni man ma jaar na la loolu du discipline de parti leneen li ci tegu mooy. culte de la personnalité mon am récemment le numéro 2 le frère Biram Souleye Diop dem na ci ben scène wax euh, divergence par rapport au président Ousmane Sonko bi ci mais je comprends pas dans un parti comme PASTEF ñuy wote rupture. Oh. comment peut-on ne pas admettre que le numéro 2 une opinion divergente avec le avec le chef de parti wax ko dafa bonheur dafa wara naturel ci PASTEF. ça veut dire que ci boo ko dégloo tamit da koy wax régulièrement lañ koy mettre en minorité xam nga kañ la waroon dem tournée. waaw. <laughs> dafa jóge bi ñu na xam nga fa la amee woon malaise. oui ndax coono ak leneen. coono leneen ci guddi gi leneen gi mooy dafa dafa doon bind discours ñu déggante ci guddi gi ma ne ko yow sax mën nga bañ a discours nga et cetera mu continuer bind ba 3 heures du matin yeewu 5 heures du matin. jël vol dem. Continuons-nous avec temps d'exposition au niveau au soleil donc là, euh, c'est normal à la limite. mais vous pouvez juger. man 22 heures la mobile le message nee programme du président Ousmane Sonko. 26 mm. mars 10 h intervention état général de l'homme. 26 mars toujours le mercredi à 16 h euh, présentation du mémorandum du M2D. Samedi euh, samedi samedi 29. Mm-hmm. samedi 29 mai. Mm-hmm. au dimanche 17 juin. tournée politique du président Ousmane Sonko. ah mooy nemmeeku tour bi la bëggoon le même jour la bind programme boobu samedi bi ci topp. Ah. day dem dès dem nemmeeku tour. ngeen ne ko déedéet. ma ne ko mais man ñëw naa sa kër sànq mais dama fekk ngay nelaw mu ne ma ah bon je m'étais assoupi mais bon xam naa suba on en reparle. ma ne ko d' accord bët set ma ne ko mais yow nga ne da ngay dem <laughs> nemmeeku tour mu ne ma waaw parce qu'il est temps mu ne ko yow benn patriote du lu bàyyi nga dem nemee ko tour donc parti bi moo ko imposé ne du génn Dakar ba fa ñu toll nii demul mënuñu di am influence bu toll noonu ci moom yenn saa yi mu jël décision ñu mettre ko en minorité yenn saa yi mu bëgg def benn affaire ñun ñu tere ko ko ba pare ñuy cultiver le culte de la personne mais yéen ñi ànd ak moom on est mal on est pas formaté pour loolu non c'est important mais yéen yéen ñi ànd ak moom hmm. wax nga fi numéro deux Diomaye am na sax ñu lay considérer de fait le numéro 2. non non loolu dañoo bëgg a loolu amul. loolu mën nga leeral les patriotes. yàgg nañ ko bëmax di ko ji numéro 2. mu lànk bañ bu tëdd ci naaj bi ndax ci jamono jooju Birame Souleye Diop moo doonoon deuxième moo toppoon ci ki nga xamante ne ci wàll parti bi ci Ousmane Sonko wax na Ousmane Sonko léegi-léegi mu bëgg jël dara ñu bañ ngir parti bi ci boppam dafa am ay règles ay discipline Lole ti bopom den ki djangene, parti pastif nan mwen doke ak yenen parti amne gouti. Mwen ti bopom ti oyefom, ti talibim, ti bug, riwom, ti len kofale mwen don prezident du Senegal. Ndak bo sed lo, nyen kwe djin sak ne mwen mwen yi dezem. Ki nye hamte mwen top tis man son ko, mwen e dedet duman. ndax it ña koy wax dañu bëgg jaxase dañu bëgg féewale na ci biir suñu biir waaye ñun amul kenn ci ñun koo xam ne poste wala premier deuxième troisième ngay xeex la ngay xeex ak mooy mooy fexe ba Sénégal ci boppam bi ñu bokk ñu bari lépp loo xam ne Sénégal moo ko moom ñu fexe ba kenn ku ci nekk fa nga nekk nga gis sa bopp waaye nga jot sa wàll ci li nga xamante ne mooy Sénégal ndax Sénégal du lu ñuy pàccoo lu ñuy péncoo la naka jëkk ak oyofam ak suufeel boppam ci la ko sunu borom yëkkatee ba dara jay sunu borom boobee nga xamante te ne mooy xool ku ko neex ci jaamam ji mu compal la tuuti rek jox la ci nguur nguur googee nag boo ko sàmmee day jeex soo ko sàmmul day jeex kon nag diir bi nga xam te sunu borom nee na la yow jox la li nga xamante ne mooy nguur wala abal la yow mi nga xamante ne yaay jiite réew mi da nga war a xam ne gënoo leen ci juddu waaye gënoo leen ci lenn dàqoo leen jàng waaye taar du taar du dara lu tax ñu far la lu dul rek ngir nga mën a jubbanti réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar fay fu mu nekk da ko mérité Ousmane Sonko lam ñu wax ci moom faw ñu dalal suñu xel ndax la mu waxoon ci moom ñëpp ñi ko xamul ñu ngi koy tàmbale gis muy oyof na te ku am kersa la te ku yaru la te gis nañu taxawaay ba mu am ba mu demee ca julli ga fële ca grande mosquée na mu def ci diggante maag imaam ba nga xam de dégg ngeen ay kàddoom ya mu daan wax ci ñi nga xam ne waaye Pastef saay bu xutba ci wàllu it daan na sànni ay xeer yu mag ci ki nga xam te mooy Ousmane Sonko rawatina parti bi yox Pastef loolee nag dafa mel ne mi ngi suñu ginnaaw waaye taxul ñu fàtte waaye day tax rek ñu xam kenn ku ci nekk fa nga féete ak la nga yéene woon parti bi di Pastef Pastef nag dafa nekk ci biir xolu Sénégalais yi sénégal yi ci boppam ñoo ko adopté bëggu ko waaye taxaw temm ngir dugal leen pale googu te loolu am na waaye taxaw temm duñ leen seetaan gunge leen ba ñu am ndam ndax Pastef bu amee ndam ndaw Sénégal ñoo am ndam baadoole yi nga xam te ne des leen doon toroxal di leen dóor di leen bunduxatal di leen rey di leen faagaagal di leen teg lu diis baadoolo yooyu ci boppam ñoo ñoo fal ki nga xamante mooy Ousmane Sonko ndax bu ma nee fal Ousmane mooy Bassirou Diomaye Diakhar fay loolu kese la ba tax na daal Sénégal ci boppam ci jamono jii daal mën nañu wax ndam rek.